ñi ànd ak ñun ci jotaay yu koor gannaaw sant suñu borom julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallama ñu ngi ñaan yàlla yàll na yàlla dollil ñu xéewal ak yërmande ak i mucc fépp doomu aadama nekk ñoo ngi lay nuyu ñi ne fii ci suñu réew mi mu di sénégal ak ñi ne ci bitim réew ñu ngi ñaan yàlla mbas mii xew ci jamono yal na yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yëkkatil ñu ko yal na yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar ci chahru ramadan ñu ngi ci weer wu tedd ñu ngi ci weer wu barkeel ñu ngi ci weeru yërmande ñu ngi ci weeru njéggale ñu ngi ci weeru jàppalante ñu ngi ci weeru muñ weer woobu moo di weeru koor weer woo xam ni moo gën ci weer yi suñu borom subhaanahu wa taala moo ko gënale ci weer yi moo di chahru ramadan alquran tudde ko ramadan weer wi nag weer wu tedd la am ay ngëneeli yu bare bare bare bari bari yu nekk ci weer wi ñu ngi ñaan yàlla ngëneel yi yàlla bu mu leen rëcc yàlla bu ñu rëcc yàlla bu mu leen rëcc yàlla nañ ñu ngeen ci am seeni wàll ñu ni tamit kadalika alhamdulillahi rabbil alamina mun nañoo am lenn loo xam ni bëgg nañ ko waxtaane tey baaxee ko jullit ñi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko bégale yonent bi bëggale nañu xam nañu képp koo xamante ni nii dafa woor am na ñaari mbégte yoo xam ni ki woor am na ko benn mbégte bi fii la ci àddina mooy ka nga xam ni dafa woor ba ngoon jot ba dog jot dangay gis ne dafay sawar ti am na jaamu yàlla boo xam ni def na ko suba ba ngoon te am ci yaakaar ci tiyaaba bu rëy rëy rëy am tamit yaqiin maanaam am am yaqiin ci xolam ne suñu borom subhanahu wa taala nangul na ko jaamu yàlla ba kooku dafay gis da ngay gis day am mbégte beneen mbégte bi dangay gis ni su daal di toogee ba ñu teg ndogu yi ba mu xool ndogu yi tuba ba ngoon xaw maroon lool xiifoon lool waaye mar moo xamante ni ni ci yoonu yàlla la xiif woo xam ne ci yoonu yàlla la mu daal di toog ba gis ndogu li dangay gis ne dafay am mbégte am kontaan kooku benn mbégte la beneen mbégte bi mooy ci àllaaxira su nit ki dundee fii yàlla yàlla guddalal ñu suñuy fan ñuy gën a di jaamu yàlla di gën di jaamu yàlla di gën di jaamu yàlla ba keroog bis penc ñu fa yagsee koor gi ñu doon woor fii ci àddina mbekte gi ñuy doon am fii ci àddina mbégte bi àllaaxira mooy gën a rëyul fàpp ci mbégte yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne koor ak alquran ñaar yi dañuy ràmm doomu aadama ëllëg bis penc yàlla ëllëg ëllëg bis ci yàlla day daal di ñëw ne sama boroom kii de sa jaam la maa ko doon tere xéewalu ci bëccëg weeru koor maa ko doon tere bànneexu ci bëccëgu weeru koor ay yàlla maa ngi lay ñaan kii de bàkkaar bu mës sa def yàlla na ko jéggal yàlla na nga ko texeel mu dugg àjjana suñu borom ne nangu naa suñu borom nangu waaye tamit alquran day ñëw daal di rammul doomu aadama tinul ko ne yàlla kii kat maa ko tere woon nelaw guddi maa ko tere yëngatu bëccëg maanaam amut noflaay guddeeg bëccëg ci alquraan bi la ne guddi gi day daal di jóg bàyyi ay nelawam di jàng alquran ngir bëgg yàlla ngir am féex bëgg suñu borom subhanahu wa taala alquran ne yàlla kii de yàlla nanga ko ram yàlla nanga ko yàlla ay bàkkaaram yàlla na ko dugal àjjana sama borom yàlla daal di nangul alquran kon koor ak alquran dañuy rammul doomu aadama te suñu rammulee doomu aadama doomu aadama day texe yàlla nañu yàlla may koor ak alquran ñu bokk ci ña nga xamante ni nii ñoom ñoo ñuy taxawu bokk na ci weeru koor weer wu tedd la yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne utiyat ummati خمس خمس خصال أعطيت أمتي خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها يونس صلى الله عليه وسلم نانا سما خيت بمين لين جروم بير تي ويرو كور موسو ماي بن خيت وموسو جيتو تي كاو سوف جروم بير يو خامني يونس صلى الله عليه وسلم خيتام ركو ام تي ويرو كور mbir mu njëkk njëkk ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na la xuluufu fami saa'im atyabu inda allahi min riixil misk ki woor suba ba ngoon lekkul da ngay gis ne biir bi dafay xaw a forox am lu muy dégagé su dégagé day mel ni ngelaw gu koy xaw a dérangé du doon loo xamante ni nii ngelaw gu neex lay doon ci gémminam day doon ngelaw gu xaw a dérangé gis nga ngelaw googu la nit ki di ko di ko jéem a xeeb wala di di di jéem a gêné wu ci ci ci gêné wu ci ngelaw gi yàlla nee na sama borom subhanahu wa taala nee na xuluufu fami saim atyabu inda allahi min riixil miski yonent bi nee na xet googu moo gën a neex fa yàlla xetu parfum ba gën a neex ci parfum yi kon nag nga xam ne xet googu mu lay lay déranger noonu la suñu borom subhanahu wa taala kontaanee ci xet googu ndax yaa ngi koy jaamu ba xet gi di la ci fekk yàlla day am kontante am mbégte ci yow kooku mooy bu njëkk ba beneen bi mbégte bi wa tastaghfiru lahumul malaika malaaka malaaka yi ñëpp xam nañ ne ibadun mukramun ay ay jaamu yàlla yu tedd lañu laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna ma yumaruun ay jaamu yàlla lañ ya nga xamante ni nii duñu mooy yàlla mukk ña nga xamante dañuy sàbbaar rek am malaka yo yoo xam dañoo seug di sabbar rek am ñoo xam dañoo taxaw di sabbar rek am ñoo xam dañoo sujjo di sabbar rek yo yi nga xamanteni ni seen lim ken xamul nu mu tollu lu dul suñu borom subhanahu wa taala malaka yu tedd yoy nga nga xam ne ñoom la yàlla waxon alladhina yaxmiluuna al'arsha wa man hawlahu yusabbixuuna bihamdi rabbihim wa yuminuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladina aamanuu rabbana wasicta kulla cheyin rahmatan wa ilma للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وذرياتهم وانك انت العزيز الحكيم ملاك yooyu nga xam ne ñoom ñooy yenu arash ñoom ñooy yenu arash di jëggalul doomu aadama yi seeni bàkkaar malaaka yooyu yonent bi nee na dañ lay jéggalul say bàkkaar yow mii woor bés mu nekk dañ leen di jëggalul suñuy bàkkaar ne yàlla yàlla na nga jéggal ñi yàlla yàlla na nga yërëm ñi yàlla yàlla na nga texeel ñi yàlla yàlla na nga faxasal ñi seen i bàkkaar kon koor am na am na solo koor ak a tedd koor ak a baax nañu fexe nag ba occasion boobu koor indil ñu ñu fexe ba exploité ko maanaam ba jariñoo ko te dinañu wax ne Euh, koor ab école la suñ doon waxee koor dafay mel ni benn école la boo xam ne nit ñi dañ see nekk di jàng su doon école la ñii jàng ci école nag lii jëriñ njàng gi mooy soo jàngee ba noppi am diplôme boo génnee diplôme bi ñuy génnee ci koor mooy ragal yàlla diplôme boobu yàlla yàlla may ñu ko may ma ko may leen ko yéen ñii di seetaan may ko mbooleem doomu aadama fu mu nekk di jullit mu ngoog kon malaaka yi dañuy jéggalul doomu aadama bi di wax yàlla سير من لياتنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا يلا يلا نجيجل نيان خمد نيو توب إن شاء الله ربي سيسيني وقتان دينا نيو توب ياتل تيبو باخ باخ باخ باخ نحت نيو سنو نيو بكاري باري نيو ويرو كور فنيو پر لكال نيوكو بنين بي يونان تبي صلى الله عليه وسلم ويزين لهم, لهم ويزين لهم الجنة yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa yuzayyinu llahu kulla yawmin jannata nee na sama borom yàlla bés bu nekk day daa taaral ajana daadi koy defar ba mu rafet daa di koy taaral sant ñu ñu defar ko ba mu taaru ngir lan ngir xemmem loo jaamam yu baax yi pour ñu xamante ni nii yàlla préparé na leen lu rëy ëllëg bis penc coono du am du ñu sonn fii ci àddina du ñu sonn fële ci àllaaxira loolu nak jaamu yàlla yi wor ñom ñokoy mom yàlla di wax ne sama jaami ay suñu xamoon li fi ne danañ jaamu di jaamu di jaamu di jaamu ba sonn danañ wor koor gu deugar kon alaxira yàlla mi ngi bés bu nek taral aljanam rafetal ko ba mu rafet di wax jaami di leen ko xemmem lo bokku na ci nak mbekté bu gëna reey suñu borom subhanahu wa taala ويغفر لهم آخر ليلة من رمضان yàlla da leen di jëggal ci weeru koor gi bës bu mujj ci weeru koor gi jaamu yàlla yi wóoroon yëpp yàlla da leen naan leen naa leen seen bàkkaar yéen ñëpp ñu ne waaw jéggal bakkaar yàlla ne njéggal googu ku jëf-jëf ku liggéey ba weer dee nag nga am salaire suñu salaire boobu mooy mooy jéggale suñuy bàkkaar xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf leen di xoolee bëtu yërmande su koor gi jeexee mujjantal bës su koor yàlla jéggal leen bàkkaar yépp mbokk julliti mongok ñu xam ne koor as sawmu junnatun koor ab barrage la ñu xam ko bu baax tamit am na ay njuumte yi nit ñi di def mel ni suñu wore dañuy tàng yi andi mel ni daal affaire bi ab balaa bu dal seen kaw dañ koy bëgg a sippi nit ñi ñu bàyyi ci xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida asbaxa ahadukum yawman saiman fala yarfuthu wala yajhal fa in qaatalahu ahadun aw shaatamahu falyaqul inni yonent bi nee na ku woor këpp ku la def lenn loo xamante ne ku xëyte woor nee na bul saaga bul jëf-jëf ju bon bul yuuxu yuuxu yu bari soo ko defee yaa ngi wàññi sa koor képp ku la saaga wala ku la dóor nee ko man dama woor dama woor mooy li ma def de mun naa koo fayu waaye dama woor jéggal naa la dama woor kon ñu defaraat xol yi defaraat jikko yi xam ne weeru koor lu tedd la lu barkeel la dafa ñëw pour former waat ñu defar suñuy jëflante suñu biir defaraat jikko yi defaraat xol yi defaraat euh, jëf yi ñuy jëf ak suñu biir ñun ñëpp lépp la ñëw pour réparer kon mbokk yi ñoom ñoo ngi yem ak yéen fii incha allah waxtaan yi ñëw dinañ waxtaan ci wàllu tuub continué waat yoo xamante ni point yu am solo mi ngi ñëw ànd ak yéen Hann TV jotaayu koor yal na yàlla nangul ñu nangul leen yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar feebar bi yal na yàlla yëkkati ko ci Sénégal yëkkati ko ci mboolem adina assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu